mi quotidien nee na professeur Moussa Seydi xam-xamam ak li nga xam ne wane na ko ci woppi coronavirus loolee jar na askanu Sénégal gi yëpp di ko jaajëfal maanaam moom professeur Moussa Seydi yaakaaru réewum lëmm la ci woppi coronavirus ndax wopp ji bu deful musiba ci réew mi Moussa Seydi bay na ci aw laaj ci wu yaatu loolee moo tax journal bi def ko homme de ne nee na professeur Moussa Seydi nit ku jub la nit la koo xamante ni ku am rigueur la waaye nag dëgg moom ko fekk fa koy bàyyee yéen a na du ñu wax guleet rek la professeur Moussa Seydi wane boppam ndax fàttali 2016 ci Ebola amee woon na ci ab taxawaay bu am solo boo xam ne bokk na ci li tax Ebola amul ci réew mi ba tey ci biir yéne kaay gi di Rewmi Quotidien nee nañu professeur Moussa Seydi ku am xam-xam la waaye am njàngam lépp ci réewum Sénégal la ko defee bu passé nag lu jëm ci wàllum wér gi yaram gi nga xam ne xarañ na ci lool wàllum tàggatu yaram tamit def cee xarañ maanaam spécialiste la arts martiaux nag gars yi moytu moom professeur Moussa Seydi bëggul injustice yéenekaay gi ba tey di mi Rewmi Quotidien xëy wax ci loi d'habilitation bii nga xam ne bëgg nañu ko modifier sur journal bi nee na loi 109-29 du 29 avril 1960 li tax ñu tegoon ko état d'urgence ak état de siège waxi metre Amadou Ali la ma ngi ci biir yéenekaay gi nee na loi boobee li taxoon ñu indi ko fii mooy trouble à l'ordre public bëgg a andi ak pëccëxoo ci réew mi waaye indiwuñu ko woon ngir xeex lu jëm ci wàllum crise sanitaire jamono ji nag jot nañu indi ci ak jubbantiku yaato yaatu journal bii di Dakar Times nee wax ji gudd gàtt moo ko gën a modifier loi 1960 bi moo teguwul fenn te Macky Sall wuruñu ko seetaan mu koy def ndax ndax loolee dafay menacer li nga xam ne mooy état de droit te lu jëm ci sunu wàllu démocratie Macky Sall daf koy saax-saaxee moom njiitu réew mi ginnaaw bi mu fi jëlee poste premier ministre dafa bëgg a isoler assemblée nationale maanaam di gouverner par ay décret te loolee baaxul ci réew mi waa Dakar su ñoo ko xam yéen a kaay gi di Sud Quotidien ak 24 heures ñu xëy fekk fa xalifa bu leew na ñaseen daan nay dànkaafu njiitu réew mi di président Macky Sall ci lu jëm ci seen bi nee képp koo xamante ni bëgg nga leen koo tere sa du ko fekkee te Macky Sall bu ko weddee mën naa jël ay jinne yóbbu leen sa pale ba ñu fanaan fa moom xalifa bu lew na ñaseen daan nay wax ne kenn mënu leen ko tere ndax Macky Sall fii la ñu ko gis muy anniversaire maanaam ñuy fecc këtëgg ak gu nandaat kon ñoom seenu gàmmu kenn mënu leen ko tere bëggut a gis benn policier wala benn takk der ca seenub ziyaara yéen kaay gi de la Soleil ak réew mi quotidien xëy di ñu tàggee Zeyna Mariama Niass mi nga xamante ni génn na àdduna waaye nag ab taxawaayam ci lu jëm ci wàllum diine ji wàllum alquran ràññee ko woon na loola yéen kaay gi de la Soleil kàddu njiitu réew mi di président Macky Macky Sall nee na Zeyda Mariama Niass bëri na ay jigéen ñoo xamante ni moo leen formé ci réew mi jamono ji daara yi ñoo nekk baayo ndax seen waajur wu jigéen la ñu ñàkk yéen kaay gi di direct news xëy di ñu fàttali naan ñu tey ji la anniversaire Serigne Saliou bi mu dëddee àdduna yéen kaay gii di Vox Populi xëy na ci lu jëm ci wiirum Dakar bi nga xam ne dañoo wax ne dañuy supprimer mairie bi loole nag tax na imam ratib Alioune Moussa Samb mi nga xam ne moo j grande mosquée bu Dakar jóg na wax nee na état bu Sénégal amul lenn Dakar lépp lébuy ñoo ko moom te nag bu ñu yëngal yéen fa metre musa Diop mi nga xam ne ay jamono muu fi jiite woon Dakar dem dikk xëy na ci yéen kaay gii di 24 heures nee na dina def kem kàttanam ngir nag fexe ba Macky Sall du am ñetteelu candidature am moom maître Moussa Diop wax ne président Macky Sall fépp wër na fa daal di wax ne 2019 bu ñu ko falee mooy nekk ñaar ak mujjantalu mandaam kon jamono ji waruñoo xaar Macky Sall di bëgg sampaan ndëndama lu jëm ci wàllum yamale mandat yi nag loolee Macky Sall créé moo ko créé Macky Sall dafa ñëw daal di koy seere a kaay gii Mamadou Ali Kane ci émission bii di Grand wax na ne Macky Sall wër te présenté wu waat Aminata Touré nee na loole mooy dëgg te Macky kenn wuru ko see seetaan ambition politique du déli lu jëm nag ci wàllum ñetteelu mandat bi lépp leer na ci atum 2016 ci référendum bi ma ngi ci yéen a kaay di réew mi quotidien yéen a kaay gii di sud quotidien ñu xëy fekk fa Seynabou Ndiaye Diakhaté mi nga xam ne moo jiite OFNAC daan nay wax ne lu ëpp ñaar fukk ci ay rapport d'enquête yoo xam ne OFNAC def na ko ba jébbal ko directement procureur daal di wax ne procureur moo yor cëggul guyam a bëri na ay rapport rapport yoo xam ne ma ngi nelaw ci tiroiru Serigne Bassirou Gueye lu jëm ci convocation Mansour Faye bi nag Seynabou Ndiaye Diakhaté daan nay wax ne képp koo xam ne njort nañ ne def nga ay léexóor of nag na laa mën a déglu yéen a kaay gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa président Mbagnick Diop mi nga xam ne moo jiite MEDES daan nay wax ci Soumaïla Cissé mi nga xam ne moo génn àdduna te woppi coronavirus daal di koy faat moom président daan nay wax ne Afrique moo ñàkk waaye Mali moo ñàkk wax ne moom moo ñàkk wax digganteem ak Soumaïla Cissé nee na xaritam la woon ba pare magam la woon wax na ne moo njëkk